la Amadou Ba di euh, quitter APR loolu ñëpp ñëpp en tout cas ñi xamante ni ñooy saytu si wàllu politique. Mhm. ñetti fan a amul nii Amadou Ba génnoo def benn je sais pas ma xam lettre la wala communiqué. Mhm. Euh, ne euh, lu mu bëgg moom mooy jël ay responsabilités yu bees façon opposition boo xamante ni noonu lay opposé wu bees boo ba léegi gis nañ ne am na ay mouvement ci euh, côté Amadou Ba ñi nga xamante ni ñoom la ñoom la àndal euh, ndaxte ñoom ñu mu xam ne ñoo ànd ak Amadou Ba dañu wax ne Macky Sall moo saboté campagne Amadou Ba moom sax moo nekkoon euh, pour pour caricaturer un peu ki nga xamante ni mooy directeur cabinet waa PASTEF yokku ci tamit. ne Amadou Ba am na ñu mu rencontré lu wér moom mooy jot na rencontré ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Euh, ñoo xam Benno Bokk Yaakaar lañ nekk Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niass ngir waxtaan ëllëgu euh, politique am euh, am na tamit ñoo xamante ni ci moom lañu ñu bokk ñoo xam membre société civile lañ ay universitaire lañ ay avocat ak ay haut cadre de l'administration ñoom ñëpp ci Amadou Ba lañu ñu àndal ngir wéye la moom ci wàllu politique am na keneen koo xamante ne si coalition benn Bokk Yaakaar la bokk muy Moustapha Mbaye nekk conseil départemental bu Foundiougne moom démb lu mu wax moom mooy Amadou Ba lay àndal tay su fekkee dafa reste mu resté su fekkee dafa dem euh, mu euh, ànd ak moom euh, di wax ne rek loolu choix politique la boo xamante ni depuis élection présidentielle yi bu ñu ko defee ba léegi boobu boobu ba léegi gisaguñu physiquement Amadou Ba physiquement laa wax parce que def na ay communiqué kay bind physiquement mhm. mu def déclaration boo xamante ni wax lan moom mooy carrière politique am bu ñuy dëgmal ñu wax ci leneen un projet de développement à hauteur de vingt milliards de francs CFA. Mm-hmm. moom la ñu mettre en place pour la souveraineté alimentaire fii ci Sénégal. Euh, projet alimentaire vingt milliards bon projet alimentaire vingt milliards après peut-être lay ñëw parce que <laughs> Yacine Fall ministre des affaires étrangères euh, je sais pas ma xam tu as tu as reçu ça. Hmm? Euh, je sais pas moo xam tu as reçu ça. jeexaleel ak Yacine. waaw c'est la même chose. Ouais. donc euh, voilà waaw projet 20 milliards bu nga xamante ne euh, pour souveraineté alimentaire ak climat bi moo nekkoon phase 2. Euh, boo xamante ne euh, moom la ñu teg ngir jàppale euh, région yi nga xam ne Sahel la ñu nekk Sénégal fii nag Sénégal dafa am ay communes yoo xamante ne ñoom ñoo bénéficié aussi projet boo xamante ne vingt milliards la si suñu xaalis Matam Fatick ñooñu le projet bi soxal am na tamit yeneen communes yoo xamante ne ñoo nekk ci waa ci Matam Agnam Agnam Civil Dabia Bokki Diawé ñoom ñëpp ci projet bi euh, lañ bokk projet bi nag lan moo ko tax a jóg moom mooy euh, dafay suqali li nga xam ne moom mooy gox goxaat yi ci wàllu dundin euh, vingt milliards à l'origine mais huit milliards yi dafay dem ci région yu ma yu ma cité sànq jëm ci ay ferme agricole ay euh, femmes yoo xamante dañuy liggéey si wàllu transformation ñoo ñeneen ñoo xam tamit dañuy liggéey si wàllu avicole maanaam ay ginaar ak euh, yu ni yu ni mel euh, loolu moom la ñu dëgmal def ko ngir Sénégal Euh, ñu jàppale leen ci wàllu agriculture ak euh, wàllu développement euh, commerce tamit ci wàllu fii Sénégal ak Afrique aussi tamit Sénégal ak Mauritanie ci frontière bi tamit foofu tamit dañu ko fay dañu ko fay bon am projet bi tamit dañu koy renforcer foofu noonu ba nga xamante ni ñi fa nekk dinañ ci mën a bénéficier bu baax a baax 2015 ba 2020 première phase bi loolu la woon bi nag à partir de 2000 à partir de 2024 la ñu ko la ñu ko sum parce que dafa arrêté woon ñu ne 60 000 ménages euh, sénégalais ñoom dinañ ci bénéficier ci ay euh, liggéey yoo xamante ne ci wàllu agriculture lay doon ak wàllu transformation aussi jigéen ñi démb lañ doon lancé li nga mhm. xamante ni moom moo di projet bi autour d'un CRD loolu am na solo ministre de l'intégration africaine euh, et des affaires étrangères Yacine Fall mi ngay wax léegi moom nag mhm. dafay inclure jigéen ñi dans la politique étrangère fii ci Sénégal. waaw euh, Yacine Fall ministre intégration africaine ak euh, ministre Fedib moo jiite diplomatie Sénégal ministre des affaires étrangères euh, ñoom nag dañu doon amal démb benn ndaje boo xamante ne dañuy ñaax jigéen ñi nan la ñuy def ngir ñu am carrière ci wàllu diplomatie parce que dañu gis ne dafa néew am tamit carrière ci wàllu politique internationale parce que aussi tamit c'est sous-représenté ci lu nga xamante ne moom moo di jigéen ñi thème bi loolu la woon carrière ak ci wàllu diplomatie ñu xarañ ci wàllu politique ba nga xamante ni seen dëkk dinañ leen mën a jëlal ay décision ëllëg yoo xamante ne dina leen euh, profitable leneen lu nga xamante ni ci ndaje mi euh, wax nañu ko moom mooy ñu sukkandiku ci ay jigéen yu nga xamante ne ràññee nañ leen ci àdduna bi ci seen leadership ci seen wàllu taxawaayu politique ngir euh, ñu mën a jàppale kuréel yi nga xamante ni yooyu la ñuy liggéeyee amoon na ay diplomate ay femmes diplomates yu bëri yoo xamante ni teewoon na ndaje bi nga xam ni liggéey institution yi surtout ci wàllu ci ONU euh, foofu euh, la ñu la ñu la ñu nekk euh, ndaje bi boo démb la woon si journée internationale des femmes yoo xamante ni si diplomatie la ñuy wax ak ci wàllu ci wàllu politique. am na solo merci beaucoup Pape Malick ñu jaajëfal bu baax a baax. actualité bi am na solo peut-être ñu rebondir un peu par rapport à Amadou Ba en quelques secondes laataa ñu jàll ci leneen. Euh, Amadou Ba quelque chose euh, ah ci nu muy. ah d'accord mooy joxe sa euh, actualité ma lay junj ay kii nga <laughs> la comprends. alors on va rebondir par rapport à l'actualité concernant Amadou Ba et sa formation politique. Amadou Ba bon formation politique boobu xaw ma nu mu tudd parce que dégg naa ay vision xaw ma lan responsabilité bon. mais mu ngi ci tànk yi. waaw parce que boobu ba léegi. Oh, xamuñu fan lay taxawee on présume que boobu mën na génn wax mais en quand quoi. man dama foogoon ne dernièrement bu mu génnee def benn benn lettre pour man boobu noonu defoon conférence de presse convier tout le monde wax ko boobu moom mooy gën a nekk euh, loo xamante ne dina am solo mais supputation yi mu ngi dee donc côté à l'autre xam nañ ni mu ngi liggéey si suuf ngir defar benn peut-être benn plateforme politique bu yaatu boo xamante ne dinañ ci mën a profité euh, ngir euh, mën a am parce que leader de l'opposition bon waruloo waaye di benn yoon mm-hmm. donc bu da nga nekk leader de l'opposition da nga war a taxaw taxawaay bu am solo Euh, bon lu lu mu bind ci euh, ci lettre bi la dernière fois ne euh, bon respect donc opposition opposition bu am responsabilité bon man dina ça m'étonnerait rek façon opposition boobu mu prospérer peut-être ni dina am ñoo xamante ni ñu si tonku parce que mais fii façon yi ñuy defee politique Sénégal. Mhm. politique offensive la laaj laaju rek boo taxaw. sauf que dafa war a changer ça doit pas se passer comme ça. non loolu loolu la wax dafay changer. Euh, ne dafay def plateforme bu bees boo xamante ne day am une nouvelle responsabilité que soit mu nekk wàllu respect des institutions euh, tënku ci affaire liberté et tout euh, mais bon est-ce que genre politique boobu moom moo prospéré fii Sénégal bu fekkee ñëpp dañ koy xaar au tournant mu génn def benn sortie moo xamante ne nañ ah bon kii leader de l'opposition la Euh, point positif bi euh, moom mooy mu ngi liggéey di di tasante ñoo xam ne nee na ay mu ngi rencontré ñoo xam société civile lañ bokk ay haut cadre de l' la ñu affilié wu si moom j' espère que suñu génnee dañuy présenté benn xarkanamu euh, fànn politique boo xamante ne ñëpp dinañ leen dinañ am ñu bëri ñoo xamante ne ah affaire bi yaat laa gël quoi su bu bu taxawee nañ ñii Euh, mën nañu am dara ci wàllu politique parce que tamit ñu ngi dem si élection législative bu fekkee dafa am ay élection législative anticipée que ñoom ñu mën a taxaw représenté bi assemblée nationale euh, donc donc lu am solo mais waaj bi daal jàpp naa ne boo dafa yéex quoi xam nga mu génn euh, bu fekkee dafay génn jarul jarul tergiversé bu mhm. génn booy génn moom na ngay génn benn yoon rek bu fekkee génn bi réussir ñoo xam ne réussir na su fekkee échec na aussi tamit ñoo xam ne échec na tonk nga xamante ne ñoo nit yi di wax ne Amadou Ba mënul def carrière mënul def carrière politique Kajoor ton avis. c'est un technocrate je sais pas comment il va pouvoir manager euh, li nga xam ne moom lay togg noonu mais il lui faudra beaucoup plus de courage parce que li mu wone ba ni ñu fi ñu toll nii di nga ko respecter si dalam di nga ko respecter si bon background bi mu am quand même c'est un intellectuel de haut niveau. Mm mais en tant que politique c'est un piètre politique parce que euh, gis nañ fi ay manque de il a fait montre de beaucoup de de de, manque de courage à bien des des des des des cas te loolu noonu dans dans dans dans dans la politique sénégalaise en tout cas fii nii ni ñuy doxalee politique boo boo amul courage di jël yenn yi responsabilité yi je pense que même bu dajalee ay nit aussi du ñu yàgg moom parce que gis naa ñu bëri ñu ñu ñu am engouement. autour de lui et mhm. ñoom sax ñoo koy pousser pour pour mu pour mu dem donc à un moment donné boo àndee ak ay nit yoo xam ne ñoom ñoo la ëpp fulla nga yeegar yeegar yi dañ la fay bàyyi dem seen yoon donc il lui faut beaucoup de courage s'il veut la politique sinon peut-être mu mu dem xool une une carrière internationale xawma la lan mais pour la politique laa là ah oui. il faut qu'il se bouge un merci beaucoup jaajëfal naa leen bu baax a baax Pape ak mhm. Kajoor pour les informations la revue web et la revue politique et économique huit heures passées de cinquante deux minutes léegi léegi dañuy dikkaat tey di 26 juin nekk journée mondiale euh, de la drogue journée internationale euh, lutte contre euh, l'utilisation et ak li nga xamante ni moo di trafic de drogue léegi léegi dañuy dalal sunu gan bu ko defee ñu yatal ci wàllu wi waxtaanee ko itam.